asalaamaaleykum mbokk yi tey jii di àjjuma fukki fan ak juróom-ñett ci weeru koor di guddi fukkeel ga ak juróom-ñeent sëriñ Soxna bi wax na ci xorotul ayni mu ne guddi fukkeel ga ak juróom-ñeent ku ca julli juróom benni ràkk ràkk bu ci nekk gannaaw Faatiha nga jàng xul wallaahu ahad juróom-ñaari yoon